mbokk internet si Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo xam ngeen ni Wally Ballago Seck tey mi ngi fële place de France euh, diwaanu euh, Thiès ci guddi war fa amal benn concert waaye balaa boobu dafa jaaroon fi xamante ni mooy midi plus di émission bi nga xamante ni Pape Seye Diallo moo koy def fële ca TFM mu nekkoon fa en waa lii yëy yàbbi ci carrière wax tuuti si jaar-jaaram alors lañ ciy jukki rek yenn ponk yi mu jot a wax ngir daal di leen koy wax alors moom euh, bi ñu ko laajee un peu ci jaar-jaaram surtout démb ba mu méttee ah, moom jàpp na ni démb dam ba mu méttee am na ñu doon bañ ni loolu amoon na am na ñu doon wax ni Papa Thione dañ ko doon forcé sénégalais yi doomam ba Pape Sey Diall tooñ na ko ni ko salaamin bu dalom béeg yooyu ak yàmbar béeg yooyu te sax nangu na ni léeg mu dajek nit wala mu gis nit koo xamante ni démb da wax lu ñaaw si moom maanaam apprécié yu ko woon en quelque sorte mais tey mu nekk koo xam ne daf koy bëgg mais nee na daf koy bàyyi si biir ndax àddina euh, moom moo demee noonu alors ba léegi Wally Ballago Seck yooyu yàbbi ci teraange bi nga xamante ni moom la yor ba Pape Seye Diallo ni ko loo sol wala loo def ñu daal di koy tudd boo jëndee oto sax ñu tuddu ko moom Wally daal di tontu ni euh, teraanga àddina bët la ndax ki nga xamante ni mooy papaam ba mu ñàkkee bakkanam dem fële nga xamante ni moom mooy yoof juróom-ñaari mètre percale ñoom ñoo ko topp donc moom comme yàlla wërsale na ko teraanga as tuut euh, du sax as tuut waaye as tuut la ko tuddee ah <laughs> moom nee na daf ciy dund dimbali ci jaam yi mais également daal di ciy dund ba ko gis xam ni moom mi ngi dund ci euh, li ko yàlla teralee alors euh, bi ñu ñëwee fi nga xamante ni moom mooy bi ñu ko laajee ndax mas ngaa def nit loo xamante ni daf la metti wala sénégalais yi lu la metti loo xamante ni en quelque sorte yaa ngi koy réccu bi mu fi soree yëre perforé bi maanaam ba mu soree yëre perforé boobu noonu defoon genre euh, comme genre soulèvement ñu publier photo mu juróon bruit bu bari baree bari nee na loolu bokk na ci loo xamante ni daf koy baalu sénégalais yi te lu ko metti loolu la waxtaan ma nag yaatu na trop mais dañuy jël ñetti ponk yi ci gën a fës euh, daal leen koy dégtal wéy nañ daa bana seen site d'information bii di Dakarnet daara du leen rëcc ci